sacrifié à un moment lu tax mu perdre maire Dakar su fekkoon dafa bo je euh, pense que mu koy wax léegi su fekkoon dafa ñëw rek euh, euh, nangu pouvoir bëgg xaalis bëgg pouvoir kon du perte jamais mais Dakar mm-hmm. kon day topp ci Tanor mu topp si Macky mais loolu la bañoon loolu moo ko indi loolu combien de temps tout perdu il a fait la prison mais kooku mënoo ko xëy tamit yeewu rek ne ko parce que bokk na ci benn benn dialogue nga ne ko traître nga mais doyen posture boobu ambition la woon non. c'était parce qu'il avait des ambition politique mais sur des principes basés sur des principes. foofu on est en train de parler d'am pas seulement ñëpp am. politicien léegi principe yooyu xanaa daf ko amatul. ok ah, parce qu'il est allé répondre. non je te rappelle une chose. parce que même bi mu nekkee prison. Mm-hmm. il a participé à tous les dialogues. Mm-hmm. son mouvement taxaw. Mm-hmm. musul est-ce que est-ce que une seule fois Khalifa mus na boycotter débat euh, discussion. imagine toi ñu emprisonné la ngay envoyé émissaire si si dialogue mm-hmm. kon bu génnee bokk si ay dialogue am de d'autant plus que Yewwi euh, c'est pas un parti c'est une coalition boo xam ne c'est vrai que am na charte mm-hmm. c'est vrai am na conférence des leaders mais ku nekk tamit am nga autonomie d'action am na nu muy demee parce que Pastef du xaar kenn pour jël décision bu situation amee foofu aussi xalifa avait intérêt tout intérêt à Léo Dialogue parce que man par exemple sur les plateaux fii euh, Kër Jaraaf lan laa wax nit bu ñu la ooyee dialogue demal olof dani sukk du tee yóbbaale say oom mu tekki lan boo demee loo d'accord nga ni d'accord ma si suñ la waxee nga ni man nii laa gisee am déet ñoom ñëpp leader yi conférence leader yi yeew yi yëpp yi wax ni duñu dem dialogue pour man dañu def erreur et je le dis et je le répète c'est pas j'ai commencé aujourd'hui <laughs> dama ni dama ni nañ dem dialogue donc bu Khalifa demee dialogue man j'applaudis d'autant plus que même sans dialogue Khalifa était certain que euh, euh, day euh, dañuy lever inéligibilité loolu Macky Sall waxoon na ko en conseil des ministres waxoon na Ismaïla Madior Fall ñu instruire dossier yi Ismaïla Madior avait dit euh, euh, d'ailleurs je pense qu'au niveau na nos quotidiens de la place on a titré que le dossier était avancé loolu xamoon na ni ce sera réglé mais bu demee dialogue c'était parce que xamoon na ni dialogue bi mënoon nañ ouvrir ay perspectives yoo xamante nii pour le Sénégal mënoon na aider ñëpp te la preuve lañ fa décider bari na lu ñu fa décider loo xam ne ñëpp ci profité wuyu non <laughs> donc. mais concernant Yewwi Askan Wi boobu noonu. ngay wax cest à man wax naa ko fii que ne. Euh, amuñu woon droit di di di di. tere sax kenn mu dem. wala di parce que boo leen nawloo man waxuma sax boycotté parce que bu boo décidé ne du dem. waaw da ngay mais keneen ku bëgg dem aussi te mu am parteem am ni muy doxalee war nga ko mën a nangu lool bu fekkee àndu nawle. franchement oui léegi man sama problème mooy. Mhm. ni ñu nekk comme kii mi ngi la koy wax xam naa sa elle est pas au fond de kii mais situation bu ñu nekk di créer nii au sein de Yewwi Askan Wi lan la mën a jur après le euh, après le. le problème la daloon Sonko si waa aar. fi mu nekk nii. dama da non waxoon naa ko à waaw yàq na yàqal na aar mais la preuve. mais c'est ça la preuve on à la place. à la place de Soleil Marème wala à la place de de de, <laughs> de Abbas Fall. amatul ku nekkoon aar rek. ku mën a supporter Sonko. Ah. seetlu li ma la wax. or mënoon nañ éviter loolu. par exemple boo jëlee Abdou mbay ay Thierno Bocoum ay Thierno Assane mais mën mënatuñu supporter Sonko. parce que moo leen yàqal. parce que moo tëb mu ni ñii kat nangam ak nangam. or loolu dañ ko war a éviter alors que tegu ko fenn. ils avaient un adversaire commun muy Macky Sall lu mu metti metti metti bul tirer ci ki nga xam ne yéen a bokk adversaire parce que loolu strat kii boobu mooy erreur boobu c'est ça que l'erreur que en train de faire ak Khalifa Sall. avec Khalifa bu ñu li ñuy def nii. deuxième tour ils ne pourront pas se retrouver. il y aurait deuxième tour. waaw eh loolu non non ah, je, je, je ah. parle de éventuellement. parce qu'il ah ouais. est difficile maintenant ah de gagner premier tour. Hein, au regard de contexte là il est difficile de gagner premier tour donc bu deuxième tour amee et donc je dis bien si. Hmm. s'il a deuxième tour il sera difficile pour que l'éventuel candidat de Yewwi bii génn xamuñu kan lay doon yàlla xam. mu compter sur euh, éventuellement Khalifa. ak taxawu Sénégal ak ak Barthélémy Dias. donc liggéey boobu tey lañ ko war a. tey rien ne justifie animosité bi amul njariñ. amul sens participer naa dem euh, dialogue ou pas. loolu la leen di wàññi. donc il faut il faut que les gens